formation sur mesure. waaw gars yi ñu ngi euh, d'abord sant yàlla julli si bi gërëm suñu waajur yi di leen remercier yéen ñi teew ñëpp muy mouvement yi jot a teew à l'heure xam nga ak ñi nga xamante ne ñu ngi si yoon bi di ñëw di remercier aussi la jeunesse sportive bi nga xamante ne teew nañ muy les deux académies ASEC muy góor ñi ngeen di gis xale yu góor yi ak xale jigéen yi waa jaamu xale yi ñu remercier aussi la mairie de Nord ñom ñi euh, xamné euh tournoi bi seen département seen kii amé amee seen commune ñu abrité euh, kii bi tirage bi jox ñu salle jox ñu chaise sans façon lolu aussi ñu ngi leen ci remercier bu baax diko jox monsieur le maire Sima Sonko pour mu jàlle lako ci euh maire Adama Sar euh, mu jox ko aussi président conseil départemental bi jox ko préfet. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi tew ñëpp. di nuyu waa Africabilité di leen remercier encore une fois par rapport ak seen initiative bu ñu jël nii nga xamante ne lépp mu ngi jëm ci cadre développement wu Kër Massar. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu waa Africanité di rafetlu initiative bi mu doon initiative boo xam ne initiative bu rafet la waaye di nuyu samay naataango yi ñu àndal mooy délégation bi lu mel ni Bisidi Matar Ba moo yor coordination des étudiants. Euh, deux mandats le bouclier de madame le ministre Assom Diatta nous avons un mouvement yi fi teew ñëpp. parce que lii bu fait ko defee bay boole parti politique yi ak mouvement politique pour ñuy daje ci cadre sport lépp seen jubluwaay mooy ñu L'équipe xamante équipe yu ëpp jàmm ci département de Kermassar, est muy collectif des leaders parce que nous sommes des leaders leader nous ñu bu incarner. il département bi 40 ans, ne fu que. lañ koy incarner di len wax ne aussi tamit affaire mom fair play rek la ndam bi mënul keur ma sar ndam bi du keur ma sar mais ma ngi ñaan yalla ma jël ko. waaw ma ngi tudd Ousmane Diallo keur ma sar nek secrétaire général euh, des jeunes du mouvement faj mo toaskan bi di santat bu baakha a suñu président suñu leader nan kan l'homme fort l'homme social du département de ma sar mel ñaan da ngeen tatchu mako bu baakha a baax muy président Mame Gana Kébé ma xam len ño xamante ñu deggu lañu ño xamante tay ji ni Kër Massar mo len ñor mais ci jamm rek lañuy dox su ko defee ma ngi nuyu wa presse xamna né man lañuy faral di nuyu académie jamm xalé bi xamna né yow ngeen faral di nuyu jeune leader xamna né da ngeen bok mais man ngeen faral di nuyu ñëpp yeen sax xamna né man ngeen faral mais maa ngi beral monsieur le maire Sima Adama Sarr nga ko damay ak mom ma door ko mu ñëw mu sétane ci kon di nuyu monsieur le maire Adama Sarr eh, Sima Sonko xarit la.

té man mi c'est mon ami c'est mon grand ami parce que sama mag la ñu donc politique du ko aussi si politique aussi dafa am ñu ci xam ñoo man dama que ne euh, dañoo remplacer ay at ci je peux parler de ndjol mi je peux parler de Québec, dama wax bisi di ngi et je pense citer ñu organiser wuñ ko ngir ut ay talent pour Kër Massar non dañ ko organiser pour faire kon tournoi man damay gis Ibrahima Ndiaye sol équipement ñëw football gis Sima Sonko mii ak monsieur le maire Adama Sarr jeune la ni ñun mu ñëw football. tey madame Wele ngi nii topp am na ñuy relation yoo xam ne c'est purement humaine te du ma ko yàq ngir politique te je pense que ñoom it duñ ko yàq ngir politique. fekkee ne développement wu Kër Massar rek kuñ si woo ñu ñëw.

et du département de Kermassar. Bon, pour le premier point, euh, les jours pour les rencontres. Donc, il y aura mercredi, samedi et dimanche. Mercredi soir, samedi soir et dimanche matin. Le programme donc pour Tambi, Tambi, il bi deux fois 25 minutes Si deux fois 25 minutes équipe bu nekk daa am heure bu ñu lay convoqué bu ngay ñëw 30 minutes avant match avant heure rencontre bi euh, pour nga remplir sa feuille de match feuille de match bi dañu ciy désigner 15 joueurs 15 joueurs yi euh, bon 8 joueurs ñooy football 8 ak góol muy 9 et y aura 5 à 6 changements yoo xam ne ne remplaçant yi ñoom ñooy dugg ci biir beneen bi day am équipement complet moy maillot short bas parce que loolu la wara war de footballer et aussi des prothèses tibiales lieu de rencontre match yëpp terrain d'escale am. C'est tool Ablaye c'est wetu synthétique boobu non match yëpp foofu lay amee incha allah euh, comme numa ma ko waxee rek règlement yëpp dina fa am bu soobee les cartons jaune ak rouge y aura aussi sanction parce que tamet tournant de paix e, ensuite discipline moom mo jitu lepp ci bir football. C'est c'est que dañ ciy veillé bu tournoi ce samedi C'est le 13 Inch'Allah. samedi 13 ak euh, dimanche 14 dañ bëgg démarré le tournoi donc comme nous avons ko chaque journée dina am ñaari rencontre dina am première heure deuxième heure pour le soir on a convoqué les équipes à partir de 17h30 pour am deux rencontres on dina ba. au plus tard vingt dina fekk ñu pare lépp incha allah loolu lañu bëgg quoi ak euh, chaque match tamit dinañ ko pare parrainer dinañ ko parrainer loolu décision à Africanité TV ñoo koy xool kuñ koy pare parrainer mooy commando mooy def loolu. aussi dina am homme du match pour chaque rencontre rencontre bu nekk dinañ xool ñuy jugé ci biti comme coach yi comme si ngoon nu mu ko waxee professionnel ñoom Daouda dinañ désigner ña ñooy homme di match bi. ñom ñooy photo ak parrain bi ak équipe vainqueur ba ak équipe yi yëpp waaw ñaari rencontre yi loolu daal laa xamoon loolu laa leen doon liiral pour wax leen lu fi nekk quoi merci beaucoup. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.